Heavyweight.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 tey nee nañu yëf yi règlement de compte moo ko waral ba abe ñu koy dakkantelee alias aada at yi toll ci ñaar fukk tëral moroomu dawalkatu saretam bii di KM moom it at yi toll ci ñaar fukk ne ko deqit ren di ëskëy ne tamit gone yooyu dañu doon jëfandikoo ay ñol yàgg naa ko wax fii xale yaa ngi jëfandikoo drogue yu ni mel du fi jóg gone yi ni ñuy jotee ci drogue bi moo yomb <laughs> moo tax lii xew yëpp di xew dëgg la comme ni ko wolof Njaay waxee ñii gàmmu ak ñii raas dem bokkuñu métier moo dem it di nga fa fekk ay yàqkat waaye nag ca dëgg-dëgg métieram dawal saret moom war nañ ko xoolaat ndax fa si léegi ay xale yu ndaw lañ leen di jox te en général it boo xoolee xale yooyu ñu ci bari dañuy jëfandikoo ay ñol 15 sangara mbaa yamba boole ci xale yi dañuy jëfandikoo seen sareet yooyu di sàcc lu ñu romb teg ko ci xaru jàmbur yi ñuy takk ci mbedd yi ma lu ñu jekk mu dem la wax yenn saa it ñu jëli ñol ba ne tàngalang di dawal fas yi xel yoo xam ni ku ñu dal sa kaw nga yàqu ma ñi leen koy jox ko def moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Parcelles Assainies romb na doy waar ab fa jàpp gorom bu jigéen jam ko ba noppi bëggoon koo waaj rendi <laughs> billaay réew mi am na lu leen gane mbir mi nag mu ngi xewee ca unité 3 3 avril bi weesu a kamara moo fa jam ñaari yoon gorom bu jigéen bii di wuyoo ci awati ba noppi bëggoon koo rendi askay <laughs> nañu nag lu tax a kamara def ñaawteef boobu mooy li mu mun a la dékku kaddu yi goro bi di teg ci kawam saa bu waxeek moom rek Soxor Njaay mu ne ko doogóor <laughs> ëpp na ëpp na di ko xeeloo ko ci patu a Camara nag bi mu demee ba ñaak ci la def njombeli ëpp na yoon nag mujj naa jot ci yëf yi bi ko polis ay tegee loxo bi ñu koy laaj dëggal na ne moo ko def teg ci ne li mu def rëccu ci dara <laughs> waaye li kenn xamul lu mu ma ne nag dëgg la nit kenn waru koo humilier toroxal ko ba mu ne tott salfaañe digniteem waaye nag yegg ba ci faat bakkan moom ngir fajee ko sa mer ndof gënu koo rëy moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca poudre mën doy war ab xale bu jigéen bu am quatre lañu fa rendi ba noppi sànni ko ci fos cey mim réew xale boobu mu ngi wuyoo tu turu na njaay moom la ñu gis néewam ci benn foos ci daara bu nekk Kër Matar fukki kilomètre tàqale ko commune bu Pout way takk der yi nag bi ñu ñëwee ci milieu bi sëriñ bi ak yenn taalibe yi sandarma yi dañ leen a buub yóbbu ngir enquête bi eskay yaayu xale bi di wuyoo ci turu Igrek Diop mooy wax de nee na doomam ji di ànd njaay ci daara la doon jàngee bu soriwul ak kër gi gone gi nag daa réer ñetti fan ñu koy wër tegu ñu ko gët ci noonu la déggee ne am na ku gis doomam jooju ñu rendi ko ba noppi sànni ko ci ab foos bu nekk ci ab daara oh, oh. potolo naka noonu ci lañ ko yëgalee chef de village bi ak gendarmerie ñu ñëw ma ne nag deretu xale yi ñuy tuur ëpp na te deretu moomin yi di wal ci réew mi bu yàggee mun naa jur musiba moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw la laa wax sûreté urbaine nag defati nañ liggéey bu rëy ndax dañoo tek ay médicaments yu takku yu toll ci ay koppa yu bare bari yoo xam ne ña ko fi doon dugal jaarale wuñ ko yoon maanaam trafic la trafic la yëf yi nag ab réseau bu rëy la ñu ciy tudd ab chinois ak ñaari sénégalais ma mooy li may wax rek réew moo xam ne da ngay gis ab baay jagal boo xam ne day gàddu ab saagam naan ay wa garab ay wa garab sénégalais yi di jënd ay réew moomu doy na war kenn mënatu la mucc mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz